bi ak euh, rapporteur bi euh, di euh, Saliou Diallo ak Momar Fall alors Saliou ñu dore ko ak yow est-ce que mën nga ñu ñëwal ci bor boobee nga xamante ne moom ngeen état du Sénégal moom la leen yoreel. waaw mën naa ci ñëw bu baax a baax sawar naa ci tontu waaw ndax du ñu am contentieux avec Sénégal donc buñ leen exposé problème avec multiple démarches. ñoom reconnaître nañu vraiment suñuy droit alors on était d'accord négocier ak ñoom ba daal ñu ne dinañ leen fay mais nag seen dossier mi ngi ci agent judiciaire de l'État alors ce ce ce faisant ñu toog continuer démarche yi ba ñu verser euh, à l'agent judiciaire de l'État deux cent trente-trois millions pour suñuy pension parce que bien qu'on perçoit mais faiblement mm-hmm. donc ce que veut dire que nii reliquat boobu moo doon deux cent trente yi. jël ko jébbal ko agent judiciaire de l'État à l'époque c'était euh, Moussa Bokar Thiam voilà donc ñu toog ba mu yàgg état bi versé cinq cent millions. pour ñu répartir ko bu ñu ko répartiree chacun avait cinq millions et tout ça mais il y avait un reliquat très important boo xam ni. ba léegi xamuñu fu mu dugg. alors ce faisant ñu toog pour démarcher yeneen yi. nekk ne moment boobu état bi verse na xaalis bi yëpp à judiciaire de l'état ñun xamuñu ci dara ñu toog a toog toog ba ñu nommé l'agence judiciaire de l'état au poste de ministre bi mu demee nag le secret yi feeñ waa budget nañu may seen xaalis fay nañ leen ko bu yàgg seen xaalis verse nañ ko bu yàgg alors cependant ñun xamatuñu lu ñuy def ñuy continuer démarche yi continuer démarche ba finalement y une députée que je citer parce que vraiment elle mérite d'être remerciée Adja Mergane Kanouté def benn intervention auprès du président euh, Macky Sall ne ko tabaski baa ngi muy daaw tabaski baa ngi nii ñii c'est des braves yoo xam ni vraiment ils méritent pas ça est-ce que mënoo leen defal mu def benn geste bu <coughs> mu defee geste bi muy deux cent millions mais cette fois-ci on l'a pas versé à l'agence lu mu ko yóbbu suñu ministère njëkk bi ñaata la woon. Hmm? njëkk bi ñaata la woon. reliquat bu njëkk bi ça faisait parce que 500 millions la ñu la ñu joxe le état bi joxe et finalement ça restait quelque quarante millions non de plus. waaw mmh. donc euh, bi président bi defee geste boobu mm-hmm. alors cette fois xaalis bi fële la ko yóbbu ministère. Mm-hmm. <clears throat> ministère répartir ko bi ñu fa jógee léegi ministère nañu état bi dafa génne benn circulaire boo xam ni du ne lu mu ku mu ameel rek du la ko verser directement sinon quatre pàcc la koy def quatre pàcc lañ koy fayee alors euh, mois de janvier passé ñu génne benn pàcc muy trois millions et quelques deux cent et mais ce qu'on déplore mooy ñun observateurs yi on mérite pas ça on a fait plus de trois décennies parce que depuis 1982 observateurs yi ñu ngi en service à la DPSP direction de la protection de la surveillance des pêches ñoom ñoo ko sanc ba tey boobu projet la mais tey direction la parce que ça marche. et lu ko doxal mooy observateur yi parce que cependant liggéey nañ fa ay trente et quelque ans. mais balaa ñoo ñëw si liggéey boobu ngeen li ngeen liggéey. bu fekkee ne Momar mun nga yokk dara si bor boobu nga xamante ne état du Sénégal yoral na leen ko. voilà effectivement euh, comme l'a dit EGA état daf ñu yoreel euh, deux milliards quarante millions. Mhm. bon ñu def ay démarches mais pourquoi ces deux milliards euh, quarante millions bon parce que les observateurs c'était des gens qui partaient en mer. Mhm. personne ne connaît les observateurs. depuis 82 donc nous étions encore jeunes à chaque fois nous étions en mer bon quand vous partez en mer vous avez des primes or que l'État ne payait pas les salaires mhm. bon de fil en aiguille les embarquements se sont raréfiés donc les observateurs avaient le temps de rester à terre. et si de mhm. observateurs yi amoon nañu jot. Mhm. toog à terre di régler seen problème. Mhm. ci la ñu ñëw nag def mouvement vers euh, c' était en 2002 vers euh, fekk Ablaye Wade euh, président Ablaye Wade di doog a toog. ñu ñu di wax ko suñu doléance. mu boole ñoo ay experts am bi ñu waxtaanee waxtaanee après. ministère des Finances, justice et tout ça, ils ont vu que effectivement nous avions raison. Mais il fallait que par exemple ñu seet euh, un terrain d'entente ñoom ñun ñu wàññi leen li li ñu ameel ñoom comme ça ñoom ñu mën ñu ko fay. Mm-hmm. alors bi ñu waxtaanee ba pare ci la ñuy retrouver avec la somme de deux milliards quarante millions. Mm-hmm. bon à chaque fois bu ñu wotee le budget ñu ne xaalis boobu dugal nañ ko ci budget bi. Mm-hmm. mais en fin de compte duñ ko gis. depuis 2011 ba 2022 ci la ñu commencé débloquer 500 millions. de cette somme. ñu jox ko ñun ñëpp ñu séddoo ko. ñaata ngeen. 92 personnes. observateurs. Mhm. biñ ko séddoo ku nekk am 5 millions de francs. loolu ban at la woon. c'était en 2022. 2022. mooy première tranche bu ñu versé. bon mais euh, à côté qui dit salaire di euh, charge sociale. Mm-hmm. surtout les IPRES. bi ñu calculer IPRES yi mu nekkoon deux cent trente quatre millions. ñu jël deux cent trente quatre millions yooyu versé ko au niveau de de l' agence judiciaire. comme ni ko waxee c'était monsieur Bokar mais au moment de régler cette somme là au niveau de l'IPRES ils ont vu qu'il y avait des pénalités qui s'élevaient à 100 millions. Or que loolu c'était pas prévu dans le budget initial muy les millions. Mhm. donc somme boobu ñu téye ko foofu muy végété. bon comment le gars s'est débrouillé pour jël 234 millions yi utiliser ko à d'autres fins. Mhm. muy l'agent judiciaire de l'État. bon on a continué à, faire le combat. dem nañ IPRES IPRES ni effectivement ils se sont réunis il était là-bas et ils sont tombés d'accord maintenant il ne restait qu'à recevoir l'argent de l'agence judiciaire mais jusqu'au moment où on leur bi jusqu'au moment bi ñu leen di wax ak ñoom versé wuñu dara bon nous ñu dem foofu au niveau de l'agence judiciaire bon ñu ne non c'est que 234 millions yi génne nañ ko mhm. mais pénalité bi ñu leen ci teg c'était pas prévu mooy indi cafouillage boobu loolu donc jusqu'à présent moo tax nous avons de faibles pensions bon de fil en aiguille ñu continuer les démarches après ñu versé waat ñu 200 millions 200 millions yi bi ñu ko versé ñu séddale ko ñëpp. Mhm. actuellement entre temps y a des décédés y a des veuves y a et tout ça mais ku nekk amoon na 2 millions. 236 500 et poussière. Mhm. bon léegi après ci la ñu nag nii loolu mënatul continuer. Mhm. léegi balaa loolu di mënatul continuer mais fan ngeen tollu jamono ji ci xeex bi. actuellement. Mhm. l' état paye mais par tranche l' état refuse pas de payer mais day fay par tranche. Mhm. tranche yooyu nag moo ñu arrangé wu. parce que y' pas mal de gens yoo xam nii amuñu kër. bon 2 millions par ci 1 millions par la day dem ba à xaalis bi dañ ko consommer. te doo ci régler dara. léegi nag ñun loolu lañu bëggoon état jàppale ñu si. Mm-hmm. Euh, fay ñu globalement ce qu'il nous doit. Mm-hmm. d'accord. Euh, aussi euh, les les les pensions. les pensions ndax au moins ñu am pension bu xaw a jéeg tuuti. Mm-hmm. Euh, Saliou. état ngeen di xaar pour que mu jox leen seen xaalis benn yoon. waaw lu ñu bëgg tànk fii ñu ne tollu temme. amaana suñu am na lu ñuy séentu. Euh, ndax tabaski bi mu ngi ñëw yooyu. yéen est du tabaski rek ngeen di yëngal. non xam nga xam nga ñun loolu gënaluñu. Mm-hmm. je le répète encore gënaluñu. parce que. Euh, kon fas yéene woo leen wàcc ci mbedd mi yëngu-yëngal. non non non non enfin je pense que bien que bon. yëf fi metti na mais pour dem si medd bi. mais daal da ngeen préféré négocier au lieu que ngeen di dem si mbedd bi di. di di kii voilà voilà. d'accord loolu loolu lañ bëgg daal ñoom ñu dégguñu. Mhm. ma fan la euh, loolu kii parce que déjà bon pour ne pas citer son nom euh, y a un au ministère. Mhm. qui s'occupe de ça mooy ne euh, ministère des finances moom mooy jël décision. Mhm. xaw ma directeur bi xaw ma ministre bi la mais ñoom ñoo jël décision di def di ko def quatre pàcc mais pourquoi quatre pàcc nous ne méritons pas ça nous avons travaillé toute notre jeunesse si euh, liggéeyal état bi toute notre jeunesse je dis parce que ku def trente de service bon vraiment bu ñu bu ñu ko génnee say at xam nga ni temps yooyu tu jeune mm-hmm. donc on a on a on a vraiment bravé l'océan mm-hmm. avec des risques guddeeg bëccëg di bàyyi suñuy famille derrière. mu neex mu naqari parce que tu es en service alors kooku nga def ko pendant trente ans. mu mun ñu reprocher dara. d'accord bon peut-être que y a des mauvaises langues qui disent mais quand même ñun on a fait notre boulot pendant trente et quelques ans. Mm-hmm. tout ça pour l'État parce que du mu ne le bateau a beau avoir matériel toog fii di ko xool. Mm-hmm. yaa ngi dégg. toog fii di ko xool. loolu. Alioune Sow bàyyi <laughs> taxul nga xam. monsieur Diallo même ma tuuti. Mhm. Alioune Sow bàyyi tardé. <laughs> c'est Sow. <laughs> bonjour. Ah, daa tiit ba ni bonsoir. Sow waay. waaw ziar naa la koy téye ça va bien merci. jaajëf waay Sow. sànni xeer ko nga la suturaal nga la suturaal waay man yee ko wane <laughs> mu yoon bu muy egsi eh, eh. bàyyi nga nuyoo après ñu àggali te nga wax ñu foo nekkoon embouteillage rek. voilà ko léegi nuyu Sénégalais yi. maa mm-hmm. bi. la jolie euh, Sophie. en mhm. perle noire et puis l'autre perle noire aussi Mariam. Mhm. di ko sant di ko gërëm sama. Saliou waaw Saliou Diallo. ah Diallo Diéré. ziar naa la. jaajëf d'accord Fall ah, Fall. Fall mhm. léegi léegi nuyoo complet bi après lay doon. maamu maamu Dame. maamu Dame. yàlla sàmm. amiin amiin sàmm la. d'accord léegi Diallo ñu àggali. Euh, ngeen wax ne service bi nga xamante ne moom ngeen rendre euh, à la la nation waaw xam nga dama ne pendant 33 ans 32 ans 31 ans tey ñu ngi au service euh, de la population parce que dama ne mhm. le bateau quand tu le vois comme ça mhm. euh, mun nga am say satellite mhm. n'importe quoi radar tout ça di ko di ko filmer fu mu nekk di xam si point bi mu nekk mais li si biir ñun ñoo ko xam parce que li ci biir ay calma ñangal yu bëree bëree ngi ci biir caay-caay yu bëree ngi si biir kooku présence physique moo ko mën a régler te ñun ñu travaillons avec les tubaab depuis ça fait trente mais tubaab yi dañoo am seeni feem yoo xam ni bu ñu koy def si géej gi ça n'arrange pas nos ressources halieutiques mm-hmm. muy jafe-jafe yi nga xamante ne daan daan ngeen koo jànkonteel waaw waaw waaw parce que parfois tu rencontres de ces capitaines un peu belliqueux quoi ñoo xam ne ñu bëgg def lu leen neex parce que dal bu ñuul nga bon ils ne prennent pas euh, en considération et compte tamit de ta posture mm-hmm. yooyu yëpp yenn saa duñ koy duñ koy kii mais nag euh, damay wax ni xam nga la pêche industrielle dafa di mbir mu doy waar mm-hmm. parce que euh, li si biir mooy rejet yi xam nga luy rejet mhm. mooy yu ñuy tuur quoi mhm. ak jeune de pêche yi jeune de pêche yi yow ba bu ñu lay jox licence bi mhm. ñuy bind option lan nga war a napp yaa xam pélagique mooy jënu kaw yi jaay sompat consort affaire yooyu wala yaa xam jënu suuf la mais bu fekkee ni y a pas une présence physique duñuy dugg si yenn zone yoo xam ne waruñu faa dugg jël li muy jël la ñu bëggul ñu tuur ko te loolu gaspillage la gaspillage la donc ñun du ñuy veiller à yow bu fekkee da nekk si benn jeune boo xam ni yaa ngi yàq pourquoi parce que yaa ngi napp loolu neex la la sa des nga jël si astut sànni une quantité considérable loolu du ñu la eh écoutez quittez ici fii ça n'arrange pas nos ressources halieutiques bu ko defee nga quitter dem feneen foo xam ni fa nga am droit aussi ñu ngi suñuy kayit di bind rejet position fa ngay noppee la nga jàpp la nga dugal. ñan ñoo leen di wax quitter ici vous les observateurs. Hein? vous les observateurs yéen yéen a leen di wax quitter ici. waaw waaw waaw d'accord ah bu ñu gisee ngay yàq nga leen jugal fii. Mhm. fii waroo fee napp. Mhm. voilà donc euh, déclaration yi aussi bu bu bu fa observateur bi nekkul déclaration yi nga xam ne moom la napp. bu mhm. fa observateur bi mën na def ay fausse déclaration. lu ko neex mu déclarer. mais s'il y a euh, l'observateur moom du mun a fen ci mesure du du mais du mun a wax lu dul dëgg daal. Euh, parce que yow tamit yaa ngi bind. parce que liggéeyam lay def. waaw mais mais mais yow tamit yaa ngi bind. à telle en cinq moom du mun a nax état Sénégal. nii ah période telle et telle napp naa fi lii tel espèce telle espèce telle espèce. Mhm. waaye waaye donc ñun tout le temps ñu ngi sauvegarder suñuy ressources. bañ ku ko yàq parce que euh, ku nekk sa option parce que dañuy gis ni kii euh, day day day def option pélagique dem napp ji option euh, dermato ku ñu koy xeeti démercial te loolu c'est pas normal mais bu si y a pas la présence physique mun na sàcc mun na dem def loolu te loolu lépp ay perte mal dafa di loo xam ni boo xoolee Europe ñoom lu tuuti lu tuuti may loo ko parce que dañuy sauvegarder seen seen seen ressources. xam nga dem naa wax fii dans un plateau d'une télévision. d'accord euh, que les juvéniles euh, dire les petits poissons. ñu ngi fii la Sardinelle ñu ngi fii Bel Air Bargny si littoral bi mais daf si am navire yoo xam ni ay navire étranger ñu ko ñu leen di wax thonier. Mhm. navire yooyu du ñuy dem. pour aller en haute mer moo xam Cap-Vert jëm moo xam Mauritanie moo xam Sierra au sud moo xam Sierra Leone wala quelque chose comme ça kooku balaa muy dem foog mu dem si littoral bi tànk si jën yu ndaw yooyu xam ni ëllëg ñoo war a màgg tànk see tànk tànk bëgg ay cuivre fees mu soog a dem moo xam cap moo xam fu muy dem loolu nag loolu la ñuy wax appât vivant moom la jël di di di sànni pour que xam nga jën dafa am vision mën nga ko sànnee fii Derklé ah fekk ñoom ña nga poste caaro yi di ko gis léeg-léeg loolu mooy amatee mhm. les poissons loolu defoon naa ko si benn déclaration automatiquement le ministre a pris des mesures. interdit leen ko mais yàggul malheureusement yàggul. d'accord voilà waaye peut-être ak euh, autorité yu bees yi am na ay euh, ndogal yoo xamante ne dinañ ko dinañ ko jël lan ngay xaar euh, comme solution face à ces difficultés qu'il a soulevées. bon euh, bi dafa dafa complexe. Mm-hmm. ndaxte. Sénégal dafa nekkoon dëkk boo xam ne bii ñëpp lañu ñu waroon xam pêche. comme espagnol yi ni ñuy def. parce que il mange le poisson. mais malheureusement bàyyiwuñ ci xel bu bare bari muy yow muy man muy keneen muy keneen. c'est pas parce que nit ki day dem géej rek ma war a am géej. mais ñun ñëpp waroon xam géej parce que géej moo ñu wër te géej gi ñun ñëpp ko bokk. il se trouve que observateur. bu ma la doon wax lan mooy observateur xamoo ko. Mhm. yow xamoo ko keneen xamu ko. c'est la première fois ñu du ko dégg te pourtant depuis 82 nous accompagnons dañuy accompagner les bateaux étrangers. Mhm. di xool lan la ñuy liggéey. Mhm. code de la pêche dafa am lu mu tëddee. mais lu fekk ñun xamuñu ko maintenant à qui imputer cette responsabilité est-ce que peut-être yéen tamit yéen déjà constitué wu ngeen en euh, syndicat est-ce que du tamit yéen yéen a waroon gën di euh, fësal seen bopp di fësal seen liggéey bu ko defee nit ñi gën a xam ne. vous euh, avez parfaitement raison madame. effectivement mais il se trouve que. Mm-hmm. bon xam nga mun a ñëw gis un plateau de télévision nga poñe leen ni leen invité leen ma quoi. Mm-hmm. mais mun ngeen oote conférence de presse wax seen jafe Pourtant, on l'a fait à maintes reprises. Donc, mm -hmm. même il y a les il y a fait, il mhm. euh, mhm. Comme ni mu ko waxee. géej gi li ko yàq dafa dafa bari dafa sew. administration la commencé. Mhm. administration la commencé. ñu ngi jiiñ pêcheurs yi et tout ça mais c'est l'administration. lan la administration def. parce que euh, code de la pêche dafa am lu mu wax. ñu voté ko à l'assemblée kenn amul droit teggi ko l'observateur son point faible dañ ni ko tu pas da ngay dem en mer yaay yaay xoolal nguur gi yaa koy déglu mais amoo droit wax su ko defee boo nekkee en mer dañu amoon ay jamono yoo xam ni euh, semaine bi da nga ci am deux fois vacation nga xam ni tu racontes tout ce qui s'est passé en mer léegi au niveau des inspecteurs ñoom ñu koy jël jox ko kilifa gi soit ñu woo marine mu génn. Mhm. wala yu mel noonu mais dafa dem ba à affaire boobu biaisé. Mhm. da ngay nekk en mer il y a des disparus en mer des observateurs qui sont partis. Mhm. on dem nañ ci géej kenn xamul leen fa leen fa bàyyi ba également. mais ça ça fait bi ñu bi ñu demee ba léegi ñaata at la toll. c'était dans les années quatre-vingt-six. ça fait plus de dix géej gi ci la ëppoon ay gaal. la ëppoon ay gaal. moom laa ko wax léegi bi mu ñëw dama ne kon bu ma waroon ni tey ji dañuy dugg ci affaire domaine pêche. dinaa indi tous les documents nga xam ni da ngay wax lii di leen mi ngi nii la preuve est là. Mm-hmm. les bateaux étrangers qu'on dit que ñooy pied géej gi c'est pas vrai. Mm-hmm. c'est pas vrai. maanaam leeralal nga ne. les bateaux étrangers yi ñuy wax nii ñooy yàq géej gi. Mm-hmm. mais c'est pas vrai. ñan ñoo koy yàq donc. les sénégalais. lan la ñuy def. nangu ñu jël observateur. te bateau sénégalais nga ni ko jëlal observateur. ah mais non c'est pas possible. ku ko rey la loolu administration moo ci ànd ak ñoom. moo ci ànd ak ñoom ñuy nekk fii ci code bi di yàq di def du n'importe quoi. dañuy yàq lan la ñuy def. dama lay jox eh, eh, les mariages d'abord. dama lay jox benn exemple. mariage yu 30 millimètres 30 millimètres. un bateau sénégalais am ko ni day napp crevette buy ñëw ci port bi jën rek lay indi. au même moment le bateau étranger bi nga xam moom day napp jën ñun ko da ngay utiliser soixante dix millimètres est-ce que waaye léegi ñu ne le crevettier y en a parce que li ñu xam nga li ñu euh, wane woon ci journaux yi la. que les bateaux autorisés il faut nga am ay xool y a que des congélateurs. Mm-hmm. y des congélateurs. Mm -hmm. or que bu njëkk ba la congélation c'était l'exception mm parce que quand tu congèles tu as largement le temps de rester en mer mhm. et de trier ce que tu veux et de ce que tu ne veux mhm. mais or que bu dee glace mhm. c'est vingt jours maximum ngay def sinon li nga li nga jàpp de yàqu vingt jours li nga jàpp day yàqu donc tu es obligé de rallier usine yëpp di fonctionner valeur ajoutée bi fii lañ ko daan defaree. Mhm. doo ko yóbbu bitim réew. mais actuellement si chacun congèle les bateaux chinois comme c'est pas possible. Mhm. xam naa ne Alioune Alioune Sow daf ñoo daf ñoo dab euh, si euh, waxtaan bi euh, waaye nag si fàttali rek ak ñi nga xamante ne téléspectateurs yi nga xamante ne nag ñu ngi soog a taal seen télé pour suivre émission bi di Petit Déj ñu ngi fi dalal si seen rubrique éco-entreprise waa syndicat national des observateurs des pêches du Sénégal ñu si dalal son secrétaire général adjoint ak kii di le rapporteur di Momar Fall alors Alioune ces observateurs dañuy xamle ni que ni état du Sénégal euh, daf leen yoreel lu toll ci euh, deux milliards euh, de quatre cent millions de francs CFA waaye ni ñu leen koy pàcc pàccalee moom moo jaaduwul loolu moo tax ñu ñëw ci bi lépp plateau interpeller les nouvelles autorités est-ce que taxawul jotul tamit taxaw ñu taxaw régler yenn situation yi balaa ñoo avancer. c'est vrai que lu ma gën a remarqué mooy. Mm-hmm. Euh, l'état du Sénégal mooy état bi bu bu gën a xam nu ñu koy euh, bari bor <laughs> mooy état bi nga xam ne mhm. moom mooy toog ameel la sa bor euh, ñeme fay la ko heure bu ko neex donc donc donc doole boobu mu am tey jii ni am na ñoo xam ne bu ñu la ameeloon bor ñii te fay ñu la ko respecté wuñu seen contrat dañ lay yóbbu dañ lay yóbbu euh, fa mbaxane doonee benn waaye état mooy ki la ñeme euh, amel bor bàyyi la di la seetaan euh, ak problème yu mu mëntu doon yoonam du ci nekk ba heure moom bu ko neex mu mu fay la te loolu xawma ci ban kayit lañ ko bind je suis amul ci kayit buñ ko bind ni maa la amel en général état bi bu nekk en contrat avec de euh, compatriotes sénégalais yoo xam ne dafa am liggéey boo xam ne dafa leen ko jagleel. Mm-hmm. Euh, euh, euh, sénégalais bi def ko wala keneen un étranger def ko. Mm-hmm. li ko war mooy ñu respecter terme contrat yi. Mm-hmm. mais ce que je remarque même pas spécialement ci yéen kese mais état du Sénégal en général moom mooy seet heure bu ko neex mu fay bor bi. moom mooy yor ay priorité am moom mooy def lu ko neex. est-ce que nekkul ne tamit Alioune foofu dafa amul dara si GAFAM. mais wala euh, am na peut-être feneen la koy sotti. mais normalement. Mhm. un état bu fekkee ne dafa teg un programme. Mhm. joxe ay liggéey. Mhm. c'est parce que budget bi à la base. sóoraale na ko ba pare xam na ni euh, euh, lii bi sàngam. mbir mbir mbir sàngam la ñu war a defar. diw moo koy defar. doomu Sénégal la doomu bitim réew waaye diw la te diw eh waxtaan nañu ak ñoom ci ay termes yu contrat bu leer pour que liggéey boobu mën a am donc ñu signé ay këyit pour liggéey te ci biir signé këyit yooyu ñu bind pour liggéey organiser nañu nan la liggéey bi nar demee bu fekkee dañ leen di jox une partie de la somme pour ngeen def liggéey bi après boo leen tolloo ci benn niveau ñu yokkalaat leen wala moitié bi lañ leen di jox wala yu demee noonu lépp mi ngi nekk ci biir kayit boobu ngeen bind yéen ñaar yow ak nguur gi. Mhm. parce que yéen da ngeen ko war a liggéeyal ñoom ñu war leen a fay. Mhm. fay bi ay condition la mais condition yooyu ñoom lu tax duñ koy respecté. en mais est-ce que foofu euh, du euh, du ay imprévu parce que tamit des fois. Hmm? Euh, comme ni nga vous avez parlé de budget des fois da ngay gis benn affaire ñu budgétiser mais on dit que ne koppar bi nekk nekk gu fi ñu jël suñu sac dem lebi ji. après ñu lebal ñëw mais maintenant mën nga ñëw am ay imprévu également. mais imprévu yooyu ci état moo warul am ci ay liggéey yoo xam ne dañ ko jóg pour sumb ko. mais urgence est-ce que nit mën na ko prévoir également. non bu fekkee ne ay catastrophe la. Mhm. wala lu lu bettee mhm. naturel. wala yu demee noonu loo xam ne euh, sóoraale wuñ ko woon. Mhm. Euh, euh, parce que c'est la c'est les aléas de la nature. Mhm. la d'accord naa ci. mais li may li may gêné kay mooy nga ne nit liggéeyal ça veut que pare nga pour mu def liggéey bi. Mhm. te comme da nga pare pour mu def liggéey mooy nekk nga ci ay conditions notamment financières pour liggéey liggéeyloo ko. parce que kii liggéey il faut mu fay ko. parce que ñu si bari en général bu ñuy ñaar la nag. ou euh, euh, yéen ñi dafa am liggéey bu ñu leen jagleen ngeen di ko def mais il faut que ñoom ñuy vérifier ndax liggéey boobu jaar na yoon waaye yéen tamit en retour dañ leen war a fay waaw mais loolu normalement tënk ngeen ko ci kayit waaw kayit boobu état bi daf koy war a respecté te mm-hmm. moom li tax mu war koo respecté moom avant muy seq ak ñoom bay wax ak ñoom ci liggéey boobu maanaam leer na ko ci boppam ni liggéey boobu mën na nekk wala boog ça veut dire que euh, il travaille parce que bu dee dama jóg pour jox nit liggéey c'est parce que euh, euh, li li war a tax liggéey bi am téye naa ko ba pare. te du dara lu dul li war a nekk ci gafaga gi. Mm-hmm. te gafaga googu man wóor na ma ni sàngam yooyu ci nekk. Mm-hmm. projet boobu ma séq ak yéen euh, am na am na am na weccit bu fa nekk. bu mm-hmm. wóor boo xam ne moom mooy régler problème bi après. surtout que bu fekkee ne liggéey bi dafa war a nekk sur un temps yéen dafa am liggéey boo xam ne da leen ko jox ngeen war ko def da leen war a fay ci ni ngeen ko. Euh, comment dire ni ngeen ko diggalantee waaw léegi nag bu fekkee ñoom respecté wuñ ko sa veut dire ni normalement euh, euh, loolu c'est illégal parce que bu doon keneen une personne normal un Sénégalais lambda bu boobaa peut-être yow bu doon kook nga ko séexal bu la fayul sa xaalis parce que da nga ko liggéeyal xam nga am nga foo ko mën a yóbbu pour ñu lijjanti problème bi waaye état moom est-ce que dafa l'État est au-dessus de la waaye ñoom nee nañ seen maire euh, euh, marche ñu manifester wuñu hmm. est-ce que doo grenade lacrymogène yi également ngeen non du loolu du loolu seulement espoir moo ñu moo moo ñu doon jàpp mhm. euh, je veux préciser par là que l'État avait déjà payé mhm. waxoon naa ko sama njëlbeen ba. état bi déjà payé. dafay déjà payé en fait dafay fay mooy ni ma la expliqué c'est-à-dire euh, état da leen di fay mais ni mu leen di fayee da leen koy pàcc pàccal. waaw mais mais mais avant ça est-ce que c'est conforme c'est conforme au terme du contrat maanaam li contrat bi wax est-ce que noonu lañ leen ko fayee. est-ce que respecté avant ça avant ça je veux dire que l'État avait versé l'argent. l'intégralité de la somme l'intégralité de la somme. les fan la duggaat au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Mhm. à l'époque c'était Bokar. Maître Moussa Bokar Thiam. très bien. Ah. mais par la suite avec les cotisations sociales mais loolu lépp gisuñu si dara. non attends xaalis bi dem na ci agent judiciaire de l' état. très bien waaw bu yeggee ba foofu kay jeex na état judi euh, agent bi moom li mu war a def mooy liggéeyam kese. Ah, mais mais s' il ne fait pas. non est ce que xaalis boobu dëgg-dëgg mu nga fa woon. waaw wala mu nga foom parce que ñun on a eu des des des des euh, des informations. des informations palpables. palpables dañ leen ko bindal si feuille. non binduñu oh, hmm? ko ci feuille là aussi. binduñu ko ci feuille mais nañu leeralal tuuti bu ko defee voilà là aussi il faut hmm. que euh, ñu bañ a def des affirmations gratuites. voilà c'est ça. c'est-à-dire. Hmm. l'État day wote un budget ni par exemple temps dañ koy génne pour retard salaire observateur en son temps ça faisait deux milliards quarante millions. Mm-hmm. dont euh, les cotisations sociales mais état bu ne génnee na ko ci budget pour moi ça veut pas dire que xaalis bi yemb na bon ensuite l'agent judiciaire dañ koy woteel un budget mais budget bi ñu koy woteel duñ ne ko fayal madame nangam fayal madame nangam fayal madame nangam ce budget là il faut régler les contentieux est-ce que waaye bon là donc dafa nekk benn enveloppe boo xam ne yëpp lay dugg ci biir. Mhm. il faut régler les contentieux. Ah, mais le budget budget adéquat na. adéquat na quand par rapport. voilà euh, ni ñu calculer ni euh, mhm. euh, kii contentieux yi. Mhm. ni ñu ni ñu évaluer. contentieux yi parce que on a xam nañ ko évaluer après l'agent judiciaire maintenant il va day procéder par arbitrage. que pour moom lii moo gën a jàmp. lii moo gën a jàmp lii moo gën a jàmp lii moo gën a jàmp je vous di que depuis 2011 on vote le budget pour les observateurs mhm. et ce n'est qu'en 2022 la ñu commencé avance avance yi ñuy avance loolu lu ko waral manque manque de volonté manque de volonté ou manque d'argent ou suffisamment de moyens. manque de volonté parce que bu fekkee ni chaque année ñu wooteel la yow. dix milliards. Mhm. mais est-ce ñu lay wooteel yegg si na ci foofu. non c'est c'est ce qui doit être fait. oh non théoriquement. voilà mais agent judiciaire. moom moo ay arbitrage d'accord mu mel ni waxtu bi waxtu bi moo ñu. voilà euh, Alioune question yi muy ñëwaat daa fekkoon ne. jàll nañ waaw moom daa mën a tardé. <laughs> donc <laughs> d'accord donc je pense. ngeen tàggatuwaale rek. Euh, voilà waxtu bi xaw nañu. voilà donc li ñuy ñaan état. Mhm. mooy ni mu ñuy fay mhm. nañu fay la globalité de euh, reliquat bi des. Mhm. ensuite la cotisation de l'IPRES de de li ñu war a fay suñuy pension ah. mm-hmm. ñu yóbbu ko IPRES mm-hmm. ça fait deux cent trente quatre millions mais il paraît que l'IPRES daf leen teg pénalité de cent millions et poussière mm-hmm. ah, déjà c'est un autre parce que les retards de versement ah, les retards de versement waxtu bi waxtu bi xoj nañu maintenant pour ce qui mhm. la pêche. la pêche. oui proprement mhm. loolu def naa émission beneen mhm. que il des documents. mais la pêche industrielle. xoolaat les bateaux sénégalais. Hmm. ñu bañ a focaliser ci un bateau chinois non y' a pas un bateau sénégalais proprement dit. Mhm. gaal gu ñëw feneen nañ la liggéeyee. Mhm. donc y' a des bateaux français. y' a bato bateaux italiens y' a des bateaux grecs. comme y' a des bateaux chinois. Mhm. mais c' est des sénégalais et des sénégalais qui travaillent mais li ñuy liggéey la ñu war a xool. d' accord d' accord mu mel ni waxtu bi moo ñu xoj. donc euh, euh, si Diallo ñu bàyyi la nga tàggatuwaale rek. waaw euh, damay wax état bi. c' est un cri de cœur muy ñaar. pêche juvénile bi fii si littoral bi ak bato bateau bateau sénégalais des chinois qui sont convertis en sénégalais ñooñu li si biir li ñuy yàq dafa ëpp parce que ñoom mënuñu pêcher sans chaussette ñeen xamu leen terme yooyu chaussette c'est-à-dire chaussette c'est des yoo xam ni c'est deux millimètres d'accord ñu koy dugal ci biir sac bi pour pêcher et que dara du échappé. loolu chinois yi c'est kenn mënu leen ko tere. te ñu ngi fi am pagaille. ñu ngi fi am pagaille di yàq géej gi kan chinois yooyu ils se disent sénégalais mais c'est pas des sénégalais je le dis haut et fort. nañ leen xoolaat gëstu leen wala ñu leen defal observateur. voilà man euh, mon dernier mot c'est ces deux options. pêche juvénile bi moo ñu teree am suñu yaboy. suñu yaboy national. parce que li nar a màgg yëpp ñu ngi koy pêcher. d'accord alors donc chinois aussi. dañuy yàq géej. kooku ñun on en a lu ñu waxul si parce que kenn mënu koo wax. que ça soit clair lu ñu xamul si parce que kenn mënu koo xam que ça soit parce que duñ si yàgg def si suñu jeunesse yëpp. donc état bi nañu bàyyi nopp. maa ngi koy dénk nag sama waa ji le premier ministre di ko dénk le président de la république Bassirou Diomaye Faye nañu jàppale géej gi gëstu ko xool ko. parce que c'est de l'or c'est de l'or ñun lu ñuy am euh, je pense bien que ñu bari amuñu ko gis nga Mauritanie gii seen bakken lañu si teg seen bakken kenn yegu leen mais ñun fii da waaw loolu nag dafa war a jeex te am naa yaakaar ni ah, ñii nga xam ne ñoo jiite tey ah, fondé nañu espoir boo xam ne mën de je fonde espoir à cent pour cent ci Bassirou Diomaye Faye le président de la République son excellence ak si le premier ministre l'excellent Ousmane Sonko. d'accord waaw nañu si jàpp déglu ñu leen. appliqué da nga nekk wala lan. non dóor ma. Eh, eh, eh, est ce qu'il est excellent. dóor ma <laughs> comment vous pouvez dire qu'il est excellent nii alors que doo commencé. non non non parce que ah, ah, ah. loolu nangul ko ko constat wam la et que peut-être. waaw voilà. mais ci euh, bu bu baxee xeeñ. léegi lan la xeeñ bu naree bu xeeñ. Ah. bu baxee xeeñ léegi lan la xeeñ ak coow gu ak bari gi yëpp. léegi xeeñul coow gu bari gi yëpp. léegi lan la xeeñagum ak ay xuloo yu métti. bu bu baxee bu naree neex bu baxee dafay xeeñ. waaw léegi lan la xeeñagum. xet bi neex xet bi neex na redressement yi. ban redressement yi ban. ah yëpp. ah ñu doon luubal. ñan la. ah mais gis nga leen ñan la si. ñu daal luubal te des na. non ñan lañ redressé kenn bàyyi ñu yemale ko foofu parce que euh, ñu fàttali rek Euh, que ni euh, ñu ngi dalaloon waa syndicat euh, national des observateurs des pêches du Sénégal ñu doon waxtaan waxtaanee nag si bor bi nga xamante ne nag nguurub Sénégal daf leen ko yoreel mu toll woon si 2 milliards 400 millions de francs fois mu leen koy fay si ay ay pàcc pàcc loole nag la ñu ne na dakk te nag nguur gu yees bi nag mu àddu nag jëmee si lu nu mel ñuy si profité rek di nuyuwaale. waa séeréer yi maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekkee sa Joal Fadiouth ñoo joor euh, Djilor euh, ak euh, île du salum yëpp yëpp yëpp yëpp Foundiougne <laughs> voilà ak fépp daal waa Fadiouth donc ñu dem nag seeti ji beneen rubrique di suñu rubrique actualité waxtaanee si li nga xamante ne moo gën